ay magam di yaroo ci kër gi màgge fi fii laa leen fekk ñoom ñu toog war a jàng yor seen leen heure bi jot na dem leen jàng ñu dem jàngi ma dugg ci kër gi sangu julli tàkkusaan ubbi sama bool di añ sama pere sama caat mi ñëw ni ma yaay jam nañ diw fekk maa ngi dégg réen mi ñuy ñëw bu ñu wàccee dañuy riir di ñëw xale yi lew na yëpp sama kër la ñuy julli la ñuy si maa leen taaja si woo bu ñuy naane bu sënkëree ñoom ñëpp ñu jàpp julli dem leew na ñibbi ñoom ba mu wàccee xale bi ni ma yaay jam nañ bàyyi laat ma ni bëri sànni bool añ bi ñëw bi ma ñëwee fii laa dajee moom ci jalu xeer bi téye ko nii mu ni basar daanu dee ma ni ko dee na ñu fer sama gémmi ñi ma déew ma leen xale bi dee na tourné jàpp xale bi ko rey téye ko ñu ne ma bàyyi ko daal koy jël dugal ko ci biir kër gi tëj ko ni police a ñëw ma ne xale yi wooteel leen ma xale yu góor yi ci kër gi ñu wàcc ñëw tëj seen bitig yi ñëw xale yu ñëw lii la ñu yóbbu ko hôpital avant muy egg dee na waaye fii la dee jam-jam bi fii la ko jam ci dënd bi ci dënd bi la ko jam deret ju bari la sotti aj bëtam yi fii daanu ci samay loxo man mii maay ndeyam maa leen yar jeex bàyyi laan ñang la tudd bàyyi laan mbàkke lañ ko tuddee bàyyi laan ñang la tudd aji jàppatuma ko de aji aji jàppuma ko xam naa ay 17 ans yooyu daal waaw liggéeyu jàng arxuraan lañu xam bu tàkku saanee ñun jàngee ba ñëw toog fii ba heure dem répété jot ñu dem répété jàngi seen xasida ñëw ci biir kër gi ñun koñ baa ngi ni daaru salaam samay gone duñu dox man nee nañ police yóbbu na ko xaw ma ko xaw ma ko xàmmeewu ma ko itam parce que xale yi koñ bi moom dëkku fi fii mooy grand pas su xale yi samay waa kër duñu dem duñu dikk loolu dong na jamono man métti xol bu jeex tàkk ba fii ma taxaw parce que yarewuma leen ko duñu tooñ tooñ daaru salaam ba daaru salaam da xam nañ ma sama doom ku mu tooñ wax ma ma faj léegi nga gis ki mujjee fer ci kër gi sax du tooñ ndax bu tooñe yaakaar na ne ma bu ma ñëwee rey naa ko man loolu laay dundee ndax damaa ragal tooñ sama doomi wujju peccor gola ma boole leen yar ak samay doom ci biir kër gi seen yaay tuxu daaw daaru baxdaat ak seen papa di sama rakku jëkkër sama jëkkër génn àdduna daaw jéeg xale yi tuxu baxdaat bu ñu xëyee fii la ñuy si ba ngoon ji daara ji la ñuy jànge ba reer ba pare ku ne dem ñibbis ñibbi sa kër bu dee dañuy dem guddi àjjuma fii lañ koy defee ci ëtt bi bu ñu demul guddi àjjuma dem si talami répété ñëw amuñoo keneen soxla lii la. waaye nag léegi nag nag ñu war cee wax nag. mu yem fi parce que sinon dañ fi gis loo xamante ni nii dina ëppi loxo waaw parce que lii moom du luy wéy te mun a wéy ndax ñi jotewul ak nit dara tooñu ñu kacaluñu ñu leen ni boom ci àllub kese du dëgg du yoon nan ci wax nag ak nuñ ci gaaw waxee rek war nañ ko cee wax wasalaam